champion ngoog champion ñu ngi ja ñu ngi lay ñu ngi lay jaale ñu ngi lay jaale sunu bi waa ñu ngi koy jaale Sénégal di ko jaale Sénégal yëpp di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ndax papa yi Modou Lo suñu papa la kon suñu papa ñëpp kon bàyyi yàlla na ko yàlla yërëm te xaare euh, doxu jullit laa dox doxu mbokk doxu àdduna noonu la àdduna noonu la ñoo liggéey bi mais bu jeexee jeex na kon suñu papa kon nu nekkee papa lu mel ni chaque jour yaa ngi dox si lu si lu baax chaque jour yaa ngi boole nit ñi ndax barki de moo njaay nga doon boole ki nga xam ne mooy Pape Diouf ak ki nga ne mooy Waly tey tamit nga ñëw feddali sa kóllëre sa diggante ak Modou waaw temps bi moté ko du ñu mën lépp mais àdduna lépp jàmm la bu weesoo ñoo bokk liggéey bi mais lépp jàmm la Tawfekh jërëjëf. ne nag tur ngi maa ngi lay jaale waay. waaw maa baal ma rek. Aziz baal ma ko rek. baal ma ko rek waaw comme que ñoo am ñoo xew la ñun. layal gañi rek. dëj bi nekk euh, loo xamante ne lu métti la. mais aussi góor gi lan lan nga jot a moom loo xamante ne marqué na la. waaw bon ku génn àdduna li nga xam si moom rek ngay seede mooy que jullit la woon bu wér bu nangul liggéey boo xamante ne àddunaam yëpp da ko liggéey euh, bu bu muy génn àdduna mi ngi mbëbët su génnee si. tawatam mu delluwaat si liggéey donc loolu rek lañ ko mën a seedeel mu di si di ko jaale famille bi yëpp di jaale muudu mi nga xamante ne moom it supporté na papam def na lépp lu ko war si waajuram taxaw na ko ba ba mu ba muy génn àdduna si loxoom la génnee àdduna donc duñ def lu dul ñaanal ko yàlla xare ko àjjana te yàlla teg loxoom si njaboot bi. ñu mu nekkoon ku xamante ko effacé pratiquement bu ñu ñëwee fii duñ ko gis. ah kari euh, bu Modou Lo di bëree il était tout le temps waaw mais paa bi li ma la rek jullit la woon bu gëm boppam bu gëm liggéey waaw bu gëm liggéey la fonk njaboot bëgg mbokk loolu lañ ko xamal jël ñëpp def leen comme doomam loolu lañ ko mën a seereel wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf. waaw office yaa ngi ko ah. Papis góor gi ah loo di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana tey defe naa ne ngay ànd ak Modou loo xam ne moom kenn waxatu ci tey paa bi en tant que koo xam ne sa wuy jur la woon yow tamit loo ñu mën wax si moom. waaw salaamaaleykum maa ngi baalu ñëpp àq ci weeru koor bi di baal ñëpp xam nga di leen ko jaale yéen tamit ci lu ñu bokk. paa bi moom. man sama papa la woon personnellement parce que mën naa ne dama jéggi sax Modou papaam paa bi otoom mën na ko bañ a wóoluwu ci woon sax ñu bëri bu dul man du Serigne Ndiaye ah walla Mourou Gueye wóoluwu ci kenn te xoolal yàlla moo ma tiim dañ daan nekk ci préparation komba sax kenn du ko ñemee laaj xaalis mais man su ma ñëwee lu ma ko leb daf ma koy jox ndax fi mu ma teg man sama xarit la woon billaay wallaay mais bon di ko ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko fi mu jóge fuuf te am nañ ci yaqiin xam nga mooy loolu quoi wallaay mënu ma wax sama xol dafa fees. tey jóge na fi euh, relation bi ngeen des fi yéen di ay jeunes tey li mu leen jàngaloon li li des ci kanam yal na yàgg te euh, ngeen gën a gudd fan ban taxawaay ngeen ci war a am pour gën ko dëgëral. waaw gën a góorgóorlu parce que paa bi moom dafa liggéey ba génnaar na paa bi ku ñu wax âge am sax doo ko gëm. ndax liggéey musul nangoo toog feebar bii mu feebar même pas un mois moo tax mu toog mais paa bi da doon xëy di liggéey liggéey wàcc 9h lay wàcc bu wàccee balaa muy liggéey dem na jumaa ja bu jógee jumaa dem liggéey bu wàccee ñëw boo ko gisee mu génn jumaa ja la dem ñëwaat toog fii ci bunt kër gi wala ci buntu boutique bi fee yàlla xam ne loolu xam nga tax ñu gën a góor góorlu nga di ko ñaanal aussi xam ne fii moom kenn dëkku fi ñun ñëpp dañ fiy jóg. diggante ci mën a wax. digganteem ak Moodu ñoom ñaar paa bi ak Moodu. waaw digganteem ak Moodu li ma ci mën a wax bëri na parce que dafa nekk loo xamante ne euh, dafa weesu man dama ne weesu na weesu na sax papa doom parce que ñoom ñaar ay xarit lañ paa bi bu meroon sax wala dara bu Moodu ñëwee wallaahi day giif. billaahi wallaahi doom ñag di nga am say doom yëpp xam nga di nga am ñoo xamante ne man saa yu ñu gisantee wallaahi al azim li muy njëkk a def ñaanal Moodu ñaanal ma ñaanal ñëpp suñu gisantee chaque jour. xam nga tolluwaayam ci Modou moom dafa jéggi dayoo chaque jour que jëfee yàlla mi ma tiim xam na ne lu muy njëkk a wax mooy maa ngi leen di ñaanal billaay wallaay taalaay moo tax xam yu loolu moo ñuy gën a manqué mais bon léegi ñaan boobu mu ñu doon ñaanal ñu ñooy bëgg ñu ñooy tourné di ko gën a ñaanal rek incha allah. Papis ñu gis ni Pape ku effacé wu la woon même en temps normal ci combat Modou yi bu ñu ñëwee du ñu am interview am il tout le temps ci coin am loolu noonu lu ko waraloon. waaw ah, boo seetloo ay gisoo image sax bëriwul. benn image la ñëpp am parce que moom moom daawul kii ci yooyu quoi xam nga mooy loolu. ñu lay jaale waat rek. waaw merci. ñu lay di lay jaale li ñu bokk. waaw di leen masawu coono di leen masawu coono yéen tamit ci coono yi ngeen di daj ak ni ngeen di bëggee joxe nit ñi information yi di leen jaale ak képp ku fi toog di leen jaale li ñu bokk. alors euh, nga nekk parcelle yàgg fi loolu macha allah yàlla na fi gën a yàgg. Mm. fréquenté crème parcel bi. lan nga xam ci Paa Gora Lo xam nga maanaam boo xoolee li nit ñëpp wax rek mooy dëgg euh, li nga xam ci moom mooy liggéeykat la ku nangoon sonn ci njabootam la kuñ daan déew kuñ daawul dégg ci benn coow la parce que kenn mësu koo dégg ci coow man mii mi côtoyé naa ko ndax suma xarit yi nekkoon ci kaas bi yoroon garage mécanicien léeg-léeg bàyyi góor moo leen daan jëlal moteur yi Dakar di leen ko indil ci otoom kon ku nangoo liggéey la ku nangoo sonn ci njabootam la te it ku baax la waaw. gis nañu dafa effacé ci carrière euh, mën nañoo wax ni au devant de la scène bu Modou di bëree doo ko dégg dafa effacé bu ñëwee kër ga doo ko gis pratiquement. loolu loolu la la. non xam nga kilifa noonu la mel kilifa waxtaan bi ngay waxtaan ak sa njaboot waxtaan bi ngay waxtaan ak sa doom warul nekk loo xam day génn ci média bi parce que ku yàgg conseil yi Modou la ku yàgg waxtaan moom la ku yàgg toog ak la ku ko yàgg digal la aussi surtout doom joo xam ne ñëpp moom la ñuy wër donc nag yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla defal ko jàmm fa mu ne fa mu fa muy fa muy tëdd tamit yàlla ko yàlla seeral suuf ci kawam jërëjëf Cheikh. maa ngi ziar. dellu nañ ziar. ñu ñu ngi lay delloo jaal yéen ñëpp di leen ziar ñëpp seen télé bi télé bu sud bu kii la parce que nit ki déplacé wu bàyyi léppam ñëw bu jël information rek kon yàlla na yàlla yóbbu ci kanam dégg leen ci télé yi gën a mag ci àdduna jërëjëf. loo ñu mën a wax tey euh, ci góorloo boo fekkee euh, pas góorloo xam naa ko nii rek dégg kii nii rek mais miinuma ko miin goo xam ne kii mais li ñëpp wax rek mooy dëgg ko ab jullit moom su fekkee ñëpp wax nañu ne ku baax la ku baax la ku baax la rek dégg naa nag ku nangoo sonal ci njaboot la ku baax la ku kii la man na soo gisee tey ma ñëw fi rek dama bokk ci làmb lees sama xarit la mu wax ma ko moo tax ma ñëw pour kii tam mu xale bu yaraloo tamit quoi ku jox nit cër la ah kon nag ñun ah, ak làmb yëpp daal ñoom ñoo ñoo ñàkk seen papa daal tey kon yàlla na ko yàlla xar àjjana ak mboolum jullit fa yëpp ci dara jënd tamit salaam. waaw jaale askan yëpp di jaale askan làm di jaale koo xam ne mooy doomam Modou du ko masu di ñaan yàlla yàlla xaree ko arjana ndax xam naa ne su nekkuloon feebar bi dugg ci réew mi fii kenn du fi xej waaw. mu nekk koo xamante ne parcelle xam nañ ko ci njàmbaar ci liggéey. ndax amoon nga kon ak moom tuuti. Euh, déedéet papa xamante bu bu ñu xamante ci télé yi rek tu vois mais bokkuñu génération euh, daawuñ loon demante mais may mun naa jël exemple ci doomam rek euh, cofeel bu mu am yar bu mu am fit bu mu am ndax mu ngi koy wone fépp fu mu ci lu mu liggéey ci làmb ji kon à travers loolu rek mun naa xam ne paa bi paa bu baax la. paa bu am diine la kon di ko ñaanal yàlla rek yàlla xare ko aljana am doom bu mel ni Modou Lo ba pare effacé wu on le voit rarement ci télé yi on le voit rarement ci ay combat am euh, loolu waaw loolu mooy ku nekk ak euh, doxinam donc loolu moo tax ma wax la ne euh, bariwuma ak moom contact amuñu ay contact quoi waaw donc ñu maase ak ñoom ñoo mun a wax mais mënuma wax qualité am mais loolu lu jafe la parce que am doom boo xam ne. am na ay ndomo tànk parce que loolu ndomo tànk la te pour ñu gis la day jafe pour nga wax day jafe loolu sant yàlla la bi yàlla jëlee ko fi tey kon ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla xari ko arjana ñooñu jërëjëf. alors euh, euh, maa ngi lay seet. yal na yàlla nangu ziar. ñu bàyyi la nga présenté wu. man assurance Malick Diop. ndax xam xamoon nga kii euh, ñaari yaay yi papaam Ngóora ak sama yaayam ak sama yaay ñoo bokk jógeendoo tey ba ñëw Gueule Tapée ñu nekk fa Gueule Tapée bi sama yaay gaañoo yaayu Ngóora moo yaayu Ngóora mi moo ñëw uuf ñu ñu ko fi Ngóora maa ngi moom ñoo xaleelandoo ñoo defandoo lu ne liggéey rek la xam nag liggéey rek la xam ñoo nekkoon Gueule Tapée booba temps muy liggéey man ma nekk maire yi di bëre man bu Modou Lo mën a bëre man mi maa tax ndax man la papaam daan bëreel dégg fenn ndeysaan. non non moom yooyu yoonam ci yooyu moom toppatoowul yooyu sax xaw ma la moom daal liggéeyam la xam bu xëyee fajar mooy kaar liggéeyi na loolu rek bu wàcce ñëw këram toppatoowul affaire bu bëri rek yooyu moom ñu dugg ci woon ba mu nekkee nag xale tolloog ñun fu ñu dajaa mu song bu ñu bëree. waaw ah, kay